Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dalee na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo bu ñu xëyee ci réew mi na leen njiitu réew mi di Macky Sall taxawal na fi ab gouvernement d'union nationale bu mu bett kenn yéenekaay gi di réew mi ko dujee ci xëlim ak Assane Samb nee na Macky Sall am na lu muy nas am na lu muy nocc maanaam am na lu muy togg te bis bu ko yàkkee soo muy tuulee du baax ndax Macky Sall jubluwaayam mooy élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ay élection locale yi mu daal di koy gagné te moom xam na ne ngir mu ko il faut mu taxawalaat xam ne bu rëy lay doon maanaam ñu daal koy wër te ñi nga xam ne ñoo bokk ci dialogue national bi Macky Sall dina leen wagg-waggal daal leen peer njaay ba leen ci gouvernement d'union nationale su ko defee coalition bu mag bi nga xam ne moom la na ma taxawal coalition boobee dina ko mën a gañeel élection législative yi te Macky Sall su gañee élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal la même su dee sëmp ndëndëm jamono joojee mooy contrôler li nga ne moom mooy assemblée nationale mën nañoo wax comme li nga xam ne moo xew ñoom nag daat nañu lànk kandaare nee nañu d'accord ñu benn yoon te duñu ko nangu élection locale yi ñu daal di koy dàq ñoom Birahim Seck Alioune Tine la mu xamle nee na Macky Sall ci boppam moo war a respecter constitution bi source a xëy ci mbënd mi nga xam ne nee na cobbay ci réew mi bëri na ci askanu Sénégal ñoo xam ne ba léegi nii ñoo ngi tëmb ci ndox mi waaye ki nga xam ne moo njiit réew mi di Macky Sall ak Moustapha mi nga xam ne moo jiite Assemblée nationale Aminata Touré mi jiite conseil économique social environnemental ak Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moo jiite au conseil des collectivités territoriales ñeent ndaxte ñii ñëpp ay institution la ñu jiite waaye kenn gisu leen ci askan wi nga xam ne ñoo laru ci mbënn mi ñi nga xam ne dañuy càmbar lu jëm ci wàllum politique nee nañu ñii su ngeen gisee ñu bañ a dem ci banlieue bu ndakaaru ngir nag seeti ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ci mbënd mi dañuy bañ ñu leen yuuxaloo bañ ñu leen njaay cekkee yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko ma nga woon sa diwaanu Ziguinchor doon seeti ñi nga xam ne ñoo loru ci mbënd mi Ousmane Sonko nee na fii ci diwaanu Ziguinchor amul benn plan d'assainissement bu baax boo xam ne état bu Sénégal def na ko fi am na benn projet boo xam ne nguur gi waxoon na ko projet boo xam ne toll na si ñaar fukk ak benn ci ay milliards waaye amul benn projet boo xam ne daan nañ koy livrer fii ci diiwaanu Ziguinchor yéen a kaay gi de laas mu xëy di ñu xamal lan ñoom mbënn mi daat nay tàqale ñi nga xam ne ñooy ku ki ndax ñoo ngi sànnante ay doj ci seen biir yéen a kaay gi de ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko lu mu yëkkul opposition bi daf ko fàtte ndax moom Sonko nee na am na ay opposants yoo xamante ni opposé wuñu maanaam ay jegeñaale Macky Sall la ñu jox leen xaalis ngir ñu may songo am na ñoo xam ne au lieu que ñu dem opposé Sall mi nga xam ne moom lañ dénk réew mi man Ousmane Sonko la opposé yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xamal naan ñu taw bi defati na musiba ci réew mi ndax ca diwaanu daara jorof foofe nag am na koo xam ne ay atam toll na si juróom-ñaar fukki ak benn ab miir moo màbbu ci kawam journal bi nee na ci diwaanu yëmbal foofee tamit am na ñaari nit ñoo xamante ni ab miir moo fett dal ci seen kaw yéen a kaay gi délibération ak source a xëy di ñu xamal naan ñu RTS maanaam dañu leen a jàpp loxo si poos ñuy tappale maanaam dañoo génne ay vidéo yi Macky Sall yoo xam ne vidéo yi Macky Sall yu yàgg-yàgg la vidéo yi Macky waa RTS génne di ko wan askanu Sénégal mel ni Macky Sall dafa dem ca mbënd ma te alors que moom Macky Sall ba léegi ni daal maanaam seetiwul ñi nga xam ne ñoo loru ca mbënd ma loole nag moo naqari loola ñi nga xam ne ñooy waa Corrète Corrète di kuréel gi nga xam ne maanaam moo ëmb taskatu xabaar yi ñoom daat nañu ñaawlu doxalinu RTS ndax RTS lan moo tax muy jël ay vidéo yu Macky Sall yoo xam ne 2012 la woon yu Macky Sall nekkee woon ci ndox mi RTS di ko tegal askanu bindu ci archive maanaam andiwu ci yenn leeral la ngir nag bëgg a naax askanu bëgg leen a gëmloo leen Macky Sall mang ca ndox ma te Macky dafa mel ni ku bañ a tàq moom ak Moustapha Niass ak Aminata Mbengue Ndiaye ak Aminata Touré yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy di ñu xamal laan ñu tey la ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllum wér yaram gi ci réew mi danañu ko daal di ci li yaato yaatu ci covid 19 ni ñu ko yore ak yang palang lay teg yéen kaay gii du l'observateur nee na ñi nga xamante ni ñoo doon dem ci cantine yi ak ci boutique yi di jënd soow ni du soow mu baax musiba ma ba kumba la danger la ci wér yaramu askan wi ndax soow yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci boutique yi ak ci cantine yi di ko wayal maanaam ñi nga xam ne ñoo ko tàmbali naan mën nañu saa jóge cancer mën nañoo am hépatite B professeur bii nga xam ne moo nekk université Bambey moom moo ko daal di xamle nee na ci ay base scientifique yu leer la ñu ko daal di teg yéen kaay gi délibération xëy yóbbu ñu diwaanu Mbuur a professeur EPS maanaam moo fa def ay jëf ju ñaaw a ñaaw professeur bi daal maanaam Siré Sall la tudd ndeke moom ñaari at a ngi nii muy tëddee élèves yi nga xamante ni moom lay jàngal la maanaam xale yu góor yi teg nañu ko loxo yéen kaay gi nee na yàgg na ko def da leen doon dikk ay not yu baax ak xaalis ab auberge daal la jëloon ab néeg borom auberge bi nga xam ne moo ko joxoon néeg bi moom teg nañu ko loxo yéen kaay gi dee sa daan na xëy wax ci lu jëm ci wàllu mercato bi njënd ak njaayum joueur mi bëri na nag ay joueur sénégalais yoo xamante ni ba léegi ni seeni mbir leeragu la ndax kali Kalidou Koulibaly waa Manchester City bëggoon nañu ko mbir mi demul cee nga dikkul mbay laara Ismaïla Sarr waa Liverpool bëggoon nañ ko ba léegi ne mbir ma demul cee nga dikkul mbay laara mbay ñaa moom ay mbirama maanaam kenn xamu ko